Diop euh, bàyyi laat ñu ngi bàyyi euh, waaw laaj si yéex ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ah, di jaajëfal euh, Adji Sy di jaajëfal euh, Lamine Faye di jaajëfal euh, ADTV jaajëfal Mor jaajëfal encore Mamadou Diouf yéen ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëfal mais di leen wax ne est-ce que abonné ngeen ci compte Allô Sénégal parce que loolu lu mu itteel la seetaan di like tamit di partager daf ci daal di am solo bu baax ñu avancé yi Cheikh Tidiane mhm. gannaaw loolu daañu addu jëm ci Thierno Alassane Sall nee na rivalité bi ñuy nemmeeku ci diggante Diomaye ak Sonko mi ngi koy doog officialiser parce que démb bu ñu déggee kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko dafay défier ki nga xamante ne mooy le président Diomaye maanaam rivalité boobu ñu doon laam-laamee fi ñu toll nii nag euh, officiel na. loolu kañ la ko wax moom moom moom Thierno Alassane Sall. a de cela trois trois heures. si li mu war a wax waxu ci ba léegi. li mu war a wax si manipulation bi dañ ko bàyyi. Thier dañ ko daan gis lu xew ci dëkk bi mu njëkkante wax lan moo tax ñaawloo violence bi am ca Saint-Louis ba mooy door a ñëw fekk sa li nga wax. Thierno Alassane Sall xaarew ñu la woon foofu. fu ñu ko doon xaar. fi ñu la république des valeurs nga woote. république des valeurs des valeurs maanaam dañu war a xoolaat suñuy valeur respecter suñuy valeur mhm. ay valeur bokk na ci fekk ay commerçant yuy daan seen doole ñu yuuxu benn tur nga agressé leen gaañ leen yàq seen i magasin jël seen xaalis nga ne yow da ngay woote république des valeurs république boo xam ne ay valeur ñoo fay am loolu ci ay valeurs yu baax la boobu tey jii nga ñëw di wax ñun ñi yaakaar ne loolu ngay ñaawlu ñaawlu woo lool de ngay dem di déglu discours jàmbur di xool noo ko interprété ñii kan na njàpp hmm. te lii lépp li ko waral du lenn lu dul bañ benn nit bañ benn nit moo waral lii bañ benn nit bu tudd Ousmane Sonko moo indi lii lépp gis nga lii bu nekkoon sens inverse bi tey jii bu fekkoon waa kër euh, waa kër Barthélémy Dias wala waa kër Bougane lañ attaqué Thier mhm. dina bokk ci ñi njëkk bind ñaawlu loolu la preuve. oui tey jii jàpp ñu fii ku mel ni Bougane. Thier nga jóge cees dem ba Tambacounda. oui nan da ngay ñaawlu ji naan da ngay solidariser wu. tey ñu jee ay téye ay sénégalais xam nga Bougane kenn dóoru ko kenn gaañu ko mais ay sénégal lañ téye gaañ leen sàcc seen xaalis yàq seen i bagage yow la moo tax waxoo ci. nga bàyyi lool parce que xam nga ne am na fee bu am de lu factuel mooy gaañ lañ ay nit. Mhm. ba vidéo yi viral ñëpp seetaan ko nga gis loolu. gis nervi yi ñu arrêté aussi gis ni am na nervis yi nekkoon ñoo gaañ xale yi ba arrêté nañ leen jàpp nañ leen loolu yëpp waxoo ci ceer xam si lan ngay wax bëgg a saytaane bëgg jaxase ay ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante kenn xamul ko gën a bëgg moroomam nga bëgg leen a jaxase loolu mënta ne affaire de ah. saytaane la. lu tax nga jàpp ne daf leen bëgg a jaxase. bëgg a jaxase moo tax ñuy te seen discours yooyu yàgg nañ ko tenir te président Diomaye Faye répondre na leen tey jii Ousmane Sonko gën a répondre aussi chaque jour noonu lañ koy defee dañ naan a jaxase dañ loolu ma sa am président Diomaye ak président Ousmane Sonko incha allah ba faw ba faw loolu mooy metti seen xol maanaam le fait que kii comme kii moo si suñu borom si ay loxam la jaaralee kii falu nekk président. Mhm. léegi loolu nag soxorew ñu ko Diomaye de Ousmane Sonko lañ ko soxore te ñoom dinañ dund ba dee te loolu dañ ko am seen xol yi loolu lay loolu mooy bon nag moo jàpp seen xol yi seen xol yi nekk xol yu bon mooy waral tey. am lu xew ci réew mi mu metti trop ñëpp mettitlu ko man loo ko mettitlu nga bàyyi loolu di dem si discours bu nit tenir si diggante moom ak nawleem goo xam ne ñoom ñaan dañoo bëggante ba kenn xamul kan moo gën a bëgg moromam léegi damay ñëw ci li mu wax. li wax bii. wax naa ko fële boppam léegi damay ñëw li mu wax. Hmm. li mu wax président Ousmane Sonko da leen di jàngal politique te ñoom xamuñu kii jëmm ji da leen di jàngal politique. naka la leen di jàngalee. très bien li mu leen di jàngal politique mooy lan tey jii. boo nekkee premier ministre. Mm-hmm. nga nekk premier ministre. nekk chef de parti. Eh? booy campagne en tant que chef de parti doo wax en tant que premier ministre. ñaari casquette très bien ñoom nag jànguñu loolu. jànguñu loolu. président Ousmane Sonko bu nekkee campagne di wax comme situation démb bi dafay wax en tant que chef de parti lan moo tax président Ousmane Sonko ne l' état a failli à sa mission par rapport ak sécurité bi. génn na ci état bi boobu. moom Ousmane Sonko mii taxaw di campagne génn na ci état bi. mais boo ko tax président Ousmane boo ko tax premier ministre Ousmane Sonko bii xam ne moom mooy premier ministre du Sénégal. kon boobu si état la bokk. boole na ci boppam. en tant que premier ministre. kan moo kan moo jiite kan moo jiite gouvernement bi. premier ministre moo jiite gouvernement bi. ministère de la justice bokkul ci gouvernement bi. ministère n'est-ce pas de l'intérieur bokkul ci gouvernement bi. te moom moo leen jiite. kon moom boo waxee loolu beneen Ousmane Sonko bi en tant que premier ministre mu ngi ci biir kon ki doon wax démb chef de parti la. chef de parti boobu nag su ko neexee. Mhm. mu mu wax mu wa dal ci kaw Ousmane Sonko beneen Ousmane Sonko bi nekk premier ministre su ko neexee sax mu adressé leen président de la république du Sénégal Diomaye am na si droit. parce que jamono ji muy wax nekkul premier ministre chef de parti la mu ànd ak ay militants am c'est important. Mhm. mais dañuy bëgg di jaxase ay nit bëgg di manipuler yaakaar ne loolu day avancer loolu mënul jàll ku baax Thierre Thierre loolu baaxul du jàll mënul ne manipulation boobu mënul ne. yow yàlla dogal na kenn du la déglu. moom ceex kenn du la déglu. nu foo teg loolu. kenn moo koy déglu Thierre. Sénégalais yaa ngi république des valeurs te yow amoo ay valeur république des valeurs te yow mi di woote république des valeurs amoo ay valeurs. Thierre amul valeur. doo nangul nit mukk loolu ñàkk valeur la. doo nangu ku la jiite. doo nangu ku la jiite mukk moo tax ceer mënta ànd ak kenn kan la Thierre di àndal Abdou Mbaye Abdou Mbaye fu mu toj Sénégal ci politique fenn. kenn xamu ko woon Macky Sall moo ko indi def ko premier ministre à part loolu fan la Abdou Mbaye jaar fii kenn xamu ko ceer amul kenn ku muy nangul parce que pour moom moom moo gën ñëpp pour moom moom moo gën a aay ñëpp pour moom moom moo xam lépp pour moom moo gën a set ñëpp amul kooku mënta nangul kenn moo tax mënta dem fen même ay sàmm sa kàddu yeneen coalition yi woon nañ ko mais manta dem parce que bëggul ko ko jiite moom moo mel noonu kon kooku ay waxam kenn waxu ko koo xam ne mënoo dajale ñetti nit kees gi dañ la fee wulee wulee amoon nooy def Ousmane Sonko mi dëkkul Thiès moo leen fekk Thiès ñoom ñëpp di leen dóor dóor yu metti loolu moo metti seen xolli mu jéem a jaxase naan dañuy jéem a jaxase jamaay ak Sonko naan Sonko dualité bi ñàngam dualité amu fi ñaari doomu benn naar la ñaari xarit ñaar ñu bëggante ba tuddante ay doom lu yàgg mhm. yàgg kaf yàgg reetaan lu manti am maanaam tey politique bi lu mu neex neex sax guddi ñoom ñaar ñooy dañuy déggante kalaa tëdd di nga dégg sa morom li xewoon démb président Ousmane Sonko en tant que chef de noonu la war a réagiré wax ci état wax ci état kii di wax ci état kooku nekkul premier ministre mais chef de parti la kon loolu ñi manipulation boobu ñi jéem a def nañ xam ne du jàll. Jomaay wala président Jomaay ak président Ousmane Sonko ñoom ñaar ba faw dañoo bëggante ba léegi kenn xamul kan moo gën a bëgg moromam ñoom nag nañu wuti ku leen bëgg. ah lan mooy loolu. nañ leen bëgg parce que kenn mën cee ànd ak moromam koo àndal tey ngeen di voté suba ñoom ñooñu. bul fàtte ne bul fàtte ne àndoon nañ ak ay ay ku ci mel ni ay docteur Abdourahmane Diouf àndoon nañ ñoom ñëpp mais ñoom ñëpp daw bàyyi leen fa parce que dañuy dem ba ci biir xam ne kii li ko tax a jóg intérêt personnel moom boppam rek te nangul ku ko jiite même boo ko ëppee xam-xam sax bëggul nga ko jiite loolu du fi amee d'accord mënuñ ñoo jaxase yem leen seen camp dañuy bëgg a jaxase da ngeen ñoo mën a jaxase yem leen seen camp ngeen doxal bu fekkee am ngeen programme lan la gis lu mu gis euh, gisul dara gisul dara balaa muy gis jéem a dajale ñetti nit ba pare pour mën a def campagne Thiès gi mu dëkk sax mënu ko fee mënu fee mu dëkk mënu fee organiser caravane. da koy waaj day préparé wu. moom Abdou mën ñu leen dajale. yow Thiès gi nga dëkk fee am maanaam ñetti nit yow nga ne niveau national da nga ah. a def campagne balaa élection yi di jeex incha allah préparé la ah Thiès waaye nañu xaar rek. mën naa am lay balaa boo xam ne yow amoo valeur. amoo ah, valeur naa da ngay woote république des valeurs. ci valeur yooyu la ñuy daal di desandi Cheikh Tidiane ak ki nga xam ne mooy Alioune Tine depuis boobu nag yéen a ko doon woo ci li nga xam ne moo xew démb ca Saint-Louis te xewoon Dakar xew aussi fay ca Koungheul mhm. moom nag nee nañu nee na nañu apaiser mbir yi nañu indi jàmm ci Sénégal waaye it moom ma ngay woo kilifa diine yi ñu daal di euh, addu ci mbir mi daal di wax bu ko defee tension bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci Sénégal ñu mën ko bàyyi maanaam moom wax na ci mbir mi waaw sax xaw naa automatique tuuti xaw naa tane parce que lu mel nii dañ daan sa waa kër Ousmane Sonko moom mu toog lu yàgg du ci wax. pendant ce temps démb dafa recadré ah ñu fàttali. dafa démb dafa recadré Ousmane Sonko. kan moom ci Tine. recadré comme nan lu mu ko wax. dañ ne Ousmane Sonko def nii ku leen mbéj mbej leen ko. waaw mu ne moom daf koy recadré parce que dafa de dafa dérapé tey nag. ñëw na indi nii nañu delloo si jàmm woo sax suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi pour ñu wax ci mbir mi. Ah, man sama mooy Alioune Tine man man man Alioune Tine man xàmmeetuma ko quoi. ndax la. je ah. bi nekkoon Rado Rado. mi daan jiite Rado. xam naa sa xale nga woon jamono jooju. Rado avant Africa Jom Center bii. Mhm. Rado la yoroon Alioune bi ñu xamoon guerrier. Alioune Tine moo xam ne bañkat la woon. Alioune boo xam ne ñëpp dañ ko bëggoon boo ko tax Alioune Tine man daal boo seetee ba ci biir. Mm. am na lu mag ki daan compal gars te amatul quoi. ah non sérieux parce que man yenn réaction yi may gis non boo demee ba ci biir Macky daan na am ñu mu compal te comp googu moom dañ na moom parce que ñii moom bi ñëwee pouvoir moom la comp yi arrêté moo tax des fois ay réaction wax boroom xol yu rek ngay gis réaction yoo xam ne da ngay xam ne kii dafa eenal kii. nañu woo kilifa ji ne kilifa aday. avant loolu am na leneen lu njëkk wax. da koy recadrer. recadrer da ko mën recadrer. dafa déraper balaa ngaa recadrer ci lool di wax ku déraper ku déraper wul waxal ca violence bi am fee ba pare ñaawlu ko ba pare balaa ngay wax kii warul waxee nii wala nee la war a waxee avant lool loolu mooy conséquence cause boobu waxal ca cause ba te nga ñaawlu ko mais duñ ko def de dañuy jéggi loolu même bu amoon ay mort sax dañ koy jéggi ñoom seen yoon neew ci loolu est-ce que gis nga ci kenn ci ñoom ku def poste dal ci kaw Barthélémy Dias duñ ko def boo ko gisee wax ma opposition bi ak ñoom ñi xam ne ñoom ñoo gérer société civile wax ma kan moo ci def poste dal ci kaw Barthélémy Dias. sañ na ñëw dal ci kaw Barth. dal ci kawam maanaam recadré ko moom moomu lañ war a recadré. démb gis nga lañu gis ci ay armes. moom waaw kay te ñoom gis nañ ko. léegi dañ caa sañ a recadré. dañ ko war a recadré xamal ko ne ko carrément yow li ngay def tegoo ko ci yoon si pays bu normal boo xam ne vraiment justice mu ngi doxee ni mu war a doxee yow da nga waroon a fanaan kaso jamono jooju. armes yooyu yëpp di nga ko gis di recadré. yi mu yor yëpp te moo ko jënd dañ ko waroon tëj moom Barthélémy Dias ñoom kenn waxu ci. kenn waxu ci gis nga tey jii démb ci guddi bu président Ousmane Sonko réagirul woon maanaam bu président Ousmane Sonko waxul kon ñoom li xew Saint-Louis ñoom noonu lañ koy bàyyi dañ koy banaliser duñ ci wax. duñ ci wax xam la moo tax duñ ci wax. Hmm. parce que ay nit ñu faraloon Ousmane Sonko la mais bu fekkoon keneen lañ faraloon ñu attaqué ko ñoom ñëpp ci wax.